waaw asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum mbokk amateurs yi. le 22 mai. arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle Thiapathioly yi maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2 drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen jox rendez-vous foofu man Boy Niang dinaa fa ñëw incha allah di fa sama fans ak sama am di jàmm yi bu jeexee jeex na dëggal neex. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit si culture Joola Mor Mor maa ngi lay bëggee bu baax a baax di la ziar Mor Diouf bu jàmbar production wala bu Ndiaye production. waaw Lamine Seck maa ngi lay ziar di nuyu mbokk internet yëpp yi suivre euh, seen Lutte TV yëpp ñu ngi leen di ziar bu baax a baax waaw di nuyu tamit euh, comme ni waa moor bu parcelle la Mor bu jàmbaar production Mor bu jam production Mor bu Ndiaye production. maanaam mooy loolu moor bu làmb quoi mais ñu ngi lay ziar bu baax a baax. seen deuxième journée. décroché ngeen grand combat bi Papa Sow ndax yomboon ngeen yomboon na pour ngeen am ñaari mbëri surtout ko Siteu. waaw en fait euh, Lamine mën na ne yomb na yombul parce que tamit ñaari mbër suñ bëggee bëre rek décroché affiche bi day yomb. Siteu dafa bëgg a bëre ak Papa Sow bëgg a bëre ak Siteu. ça pour décrocher loolu rek soo defee tuuti euh, moyen rek effort yu ndaw rek. combat bi da nga koy décrocher. léegi nag ñu siy gërëm tamit ménagères yi. muy père Max Mbargane gis nañ tamit moom daj na ay coono. en plus tamit dafa am yéene bu baax a baax lu rëy pour jàmbar production tegu ko waaw boobu ba léegi ñun gis nañ ay taxawaayam gis yéeneem gis gis gis-gisam ak ay conseil am si jàmbar production pour ñu mën a décorer sa affiche bu mel ne euh, Siteu ak Papa Sow di demande nationale ñun ñëpp gis li fi xawoon seen combat amateurs yi nag euh, ñi jëndoon seen bee yëpp. namoon gis combat gisuñ ko tey jii nag jàmbar production ah, yombal na leen te incha allah fas yéeneen si liggéey lu doy waar daal. Mhm. Pape Fall daf ko bëggoon tëgg yàlla def cat dugg ci boobule combat jàmbar production amaguñu expérience bu ñu organiser événement bu mag yenn stratégie ngeen nar a teg. ñan ngeen nar a waxtaanal pour ngeen réussir mission boobu noonu ndax nag mission bi mission commande waaw en fait soo xoolee ñaari affiche yu nu décoré muy Franc Sokh du affiche bu ndaw di Papa Sow Siteu du affiche bu ndaw te tamit jàmbaar production comme ni ma koy waxee mën na nekk gan euh, si bëtu nit ñi mais ñay organiser si tëgg làmb ña koy organiser duñ ay gan si làmb mën na ne Siteu Papa Sow bokkoon na xëy na Pa Abdou Fall la ko tegoon tegoon ko si loxo Fallou Ndiaye ñun bokkoon nañ si ñu doon organiser journée bi. kon ça veut am nañ expérience te tamit teewul ah, saa su ne dañuy laaj parce que tamit ñun ay nitu làmb lañ képp koo xam ne suñ euh, dugalee si jàmbaar production laaj la si xalaat nga indi benn touche bu particulier boo xam ne mën nga yóbbu journée bi beneen niveau ah dañ lay fekk si parce que tamit ñun tëjuñ suñ porte si kenn. ñun ñëpp leen ñuy waxtaanal nitu làmb yëpp leen ñuy waxtaanal expérience yëpp leen soxla pour journée bi mën a am réussite à 100 pour cent te incha allah dinañ xam ne jàmbaar production euh, su ñëwee Siteu Papa Sow dinañ xam ne ñii dun ay notif si milieu bi quoi dinañ def événement bu mag a mag boo xam ne adduna da koy bàyyi xel daal waaw. événement bu mag pour adduna bi euh, bàyyi ko xel wala boog respecté ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko organiser sécurité bi dafa war a mat côté boobu ndax euh, budget journée bi. li ngeen war a def ci sécurité boole waale ngeen ko ci pour def loo xamante ne peut-être mosuñu ko gis ci làmb waaw en fait Lamine soo ne budget journée bi euh, jàmbaar production mën nañ ne deux ans si ginnaaw ñu ngi réunir pour taxawal lu mel nii ça veut lépp prévoir naan ko mënoo dugg si affiche di làmbatu affiche soo si dugg day fekk sa lépp pare mm-hmm. en fait muy côté sécurité yi ngay wax ak yooyu yëpp xalaat nañ si lépp dañ ko noté euh, lu si jot moment bi rek dañuy ñëw ñi ko war a gérer gérer ko. bi combat bi moom moo laaj sécurité bu dul dara ndax combat la bu nga xamante ne day feesal arène nationale. waaw c'est normal parce que ku xam Siteu amaana fay nañ fi mbër ay cent millions cent cinquante millions Siteu na muy def arène bi gis néew na mbër di ko def moo tax mérité lu ne. waaw mu ñu koy jaajëfal xëy na tamit moom def na effort pour combat bi taxaw moo tax tamit Siteu ku jar a remercier la si domaine di remercier tamit papa moo it def na effort tamit si domaine yooyu mooy wane ne daal côté sécurité bi na si àdduna bàyyi xel parce que tamit la yàqoon làmb jooj ba amul dañ siy veillé rek rectifier corriger tuuti rek continuer loolu kase la amul amul yeneen détails yu si am. amul yeneen détails yu li ñuy faral di gis mooy combat taxaw mbër bi dem waajal def interview open press def signature de contrat ci ban façon dañ mën a xaar jàmbar génn foofu boo xamante ci jaay combat loo xamante ni innovation lay waaw Lamine wàllu innovation yi moom mën nga xaar lu ne parce que tamit contrat yi ñu euh, les ménagères ça tout dire lépp a ne si biir mooy war ne innovation yi doy waar ñu ngi koy prévoir parce que tamit ku jëm si programme en fait doo dévoiler lépp li nga bëgg a def comme benn def suñu conférence de presse euh, Sokh ak Franc gis nañ ak pare promoteur yu bëri copier lu mel noonu ça veut dire ne teg nañ lépp suñu palant yëpp leen war a liggéey si programme yooyu muy Sokh Franc di Papa Sow Siteu teg nañ suñu feuille de route avant dañuy répéter rek répétition lay nekk mais comme si euh, lamb leen nekk saa su ne dañuy bëgg nëbb ñun la ñuy def ba yegg si si la nga xam suñu si yegg see dañuy finaliser rek dem suñu yoon quoi le waaw le 19 juin mën nañ ne affiche yëpp mën na bookale nañ ñu ngi si phase promotion bi ñu ngi waxtaan ak ay partenaires yi ñu war a accompagner si le 19 juin bi ñu sori nañ si quoi. Mm-hmm. en fait gis nañ monté nañ tamit euh, gala mën nañ ne du grand combat la ñun la ñuy tëgg ñun gala la ñuy tëgg. Mm-hmm. ça dire ne da ngay am sax problème position yow mbër mi fa dugg ban position ngay bëre. d'ailleurs booy bëri ñu ngi nuy woo man bonne position laay bëri premier combat wala neuvième combat ça veut ça veut dire ne làmb qualité la te tamit pour nga xam crème mu làmb faw nga nekk si biir te incha allah le 19 join jàmbaar production bis bu wàccee si làmb ji dinan xam ne ñii ah bëgg nañ yóbbu làmb fu sori daal mm-hmm. waaw. jàmbaar production nag gars def bëri de. waaw xam nga làmb moom en fait gars yi lu ne la ñuy wax li ñuy fay dafa bari li ñuy fay dafa néew mais tamit mbëri mérité na lu ne. fay nañ fi mbër cent millions dix personnes du ko topp. en fait boo yi mobiliser nii faw tamit ñu mettre leen en valeur. waaw jox leen cër bi moom. ba pare encourager leen pour tamit euh, le 19 juin daa am tamit leneen beneen système boo xam ne tamit teg nañ ko si. loolu moom mën naa ko may amateurs yi. mooy 4 poules de 4 lañ def muy 16 litres. Euh, poule bu nekk dañ fa bëgg a def trophée teg fa enveloppe. booy si booy bu si ëpp mobilisation si journée bi sa président fans club la ñuy jox trophée bi jox ko enveloppe bi pour seen transport. Mm-hmm. incha allah ay innovation yoo xam ne jàmbar production moo ko bëgg def si journée le 19 bi. parce que ñun ñun boole ñëpp ay booy am ginnaaw lan xëy na sox franc sax ñoom seen trophée à part ñoom bokkuñ si pool yi seen trophée à muy sox ak franc ku fa ëpp mobilisation tamit sa président fans la bëgg nañ ko décorer ba décoration yi am solo daal bëgg nañ koo fa def ay innovation yoo xam ne jàmbaar production pare na pour def ko le 19 juin. sox mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi Maroc France Belgique kii France Belgique. kañ nga leen soxlaa ci réew mi kañ nga leen waaw en fait euh, sox mu ngi Maroc di waajal euh, Franc tamit mu ngi Belgique di waajal ça diir ne ñoom ñaar ñëpp combat bi am na fu mu leen toll. parce que tamit du làmb ju ndaw làmb joo xam ne mën naa ne quatre promoteurs yi si nekkoon. suñu borom jagleel ko jàmbar production ça veut ne mbëri tolluwaay boobu lan xam moo tax ku nekk jóg nga dem waajale na su koor gi passé na ñoom ñëpp dinañ ñibbisi ñu commencé phase promotion bi phase à phase yi suñu programme nu muy déroulé yooyu yëpp mais ñu ngi déggante ñoom ñoom ñëpp ñu ngi si jàmm daal waaw comme ni may wax jàmbaar production mën na ne affiche yu neex yëpp yi ama demande nationale yëpp intéressé na ko tey jii Euh, décorosé nañ Siteu Papa Sow suba mën nga gisaat ñu décorosé Tapha Tine euh, Eumeu parce que demande euh, amateurs yi rek la ñuy xool lu neex amateurs yi te tamit comme ni ma doon wax rek jàmbaar production ñëwul si làmb pour jouer ay songoror leader lañ bëgg a nekk te pour nekk leader doo ragal dara waaw ñeme nañ fi ñu jëm xam nañ fi ñu jëm te incha allah liñ bëgg a teg bis buñ ko tegee àdduna dina nangul na jàmbaar production bi label bu mag la waaw. loolu daal ñëw leen maa ngi kii. waaw incha allah jubóo na ak tafaati nag. waaw comme tey léegi rek mu demee nii ñëpp xëy na gis Papa Sow si te taxaw gis nañ Franc Sokh taxaw beneen affiche tamit noonu lay demee ñu ngi si affiche yëpp yëpp nu intéressé waaw parce que affiche boo xalaat amateur di ko waxtaanee intéressé na jàmbaar production te incha allah dinañ si def affiche yëpp ay jéego pour mën ko décrocher. beneen question dama fàtte woon guy gi Papa Sow doon na wax lan moo tax taxaw. waaw en fait euh, guy gi Papa Sow tamit intéressé woon noonu. intéressé woon d'ailleurs woowoon nañ camp guy gi di négocier ak ñoom mais tamit ñoom am na gis-gis bi ñu ci am wax nañ tamit su dee combat ba dafa taxaw est-ce que duñ may guy gi benn temps de préparation parce que si bénéficiaire la jógee xëy na tamit euh, label ban réunir mën na am en fait loolu du leen arranger te tamit euh, suñ différence moment boobu ak Siteu tamit sorantewul woon ñu finaliser Siteu bi rek. waaw mais yëpp affiche yëpp intéressé nañu parce que tamit guy gi papa événement la guy gi site événement la yooyu yëpp ay événement la lamb yëpp daal maanaam intéressé nañu quoi. kontaan naa si jërëjëf Lamine. waaw asalaamaaleykum Sénégal mbokk amateurs yi. le 22 mai. arène nationale. man Boy Niang le fils de De Gaulle Thiaba Thioly maa leen di jox rendez-vous. Mama Lamine Garga 2. drapeau Abdou Karim Sall. ci combat Kajoor production muy Ibrahima moo ko tëgg muy Kajoor production muy combat bu rëy combat espoir. maa ngi ci woo soppe di ci woo am di jàmm yëpp. ñu ngi leen di jox daanaka foofu man boo ñaa dinaa fa ñëw incha allah di fa woo sama fans yi ak sama am di jàmm yi bu jeexee rek jeex na dagal neex. di leen nag am seen dina dugg si ak culture séeréer dina maye tamit aussi culture Joola.